عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المحمدي المعلوم أبي العباس مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه radiyallahu an waarisi sirrihi wa xalifatihi ala al itlaq saaxib alfayda tijaniya cheikh alislaam alxaaji ibrahima Niass radiyallahu an xadimi moolana cheikh ibrahima Niass saaxib alxalawaat alajiba saaxib alasraar alrabbaniyati saaxib alfutuxaat alilahiyati rabbaniyati alxaadimu alakbar alfaani fi cheikh tijaani wa arisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa aynuhu mawlaana cheikh dem radiallahu anhu maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sang mi ndeefi di ñaan yàlla tëbb ak leer ci borom katmiya ak borom xatmiya muy mawlaana cheikh ahmed tijaani radiallahu anhu mi nga xam ne mooy borom guddi gi mooy borom bu kawe muy borom maqaama yi jagleel ñaan yàlla yokk leer saaxibam taalibeem waaye ndonoom waaye jëmmam waaye leeram waaye ki nga xam ne mooy leeru leer yi nga xam ne mooy jëmmu jëmm yi ki xam ne mooy mbóoti mbóoti ki nga xam ne mooy siru zaati masari asmaa wa sifaati muy Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Tidiane di fàttaliku góor gu tedd jaamu bi yàlla bu tedd taalibe bàyyi bu dëggu xadimu am dogu xam ne mu ngi gàddaawee ba fuuta ñëw fii ci ndigalu yàlla ci gént gu leer nañ musta dégg turi moolana cheikh ibrahim mu ñëw ibrahim radiallahu taala bindanteeg moom lu jiitu aksi cheikh ibrahima jox ko tarbiya kooku du kenn ku may tukulóoru moolana cheikh ibrahima radiallahu anhu tukulóoru bàyyi kooku du kenn ku may borom xalwa yu kawe ya dem radiallahu taala anhu nga xam ne dafa jaay dundam jaay eh, sangam jaay askanam yëpp ak lépp lu am rek jox ko yàlla ci buntu Cheikh Ibrahima yàlla fay ko fay koo xam ne may ko dig ko ci àddina ak ci àllaaxira yal na yàlla dëggal fay yooyu ak yaakaar yooyu kooku mu Ceerno Xasan Dem radiyallahu anhu nga xam ne mbuggeelam ci yàlla moo ko may lim am mbuggeelam ci Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu moo ko may lim am dëggoom ak mbuggeelam ci Mawlana Cheikh Ibrahima ak liggéeyal ko amul guddi amul bëccëg lu ëpp ñaar fukki at ak lu teg mu liggéeyal sëriñ bi xam-xam bu ko yàlla jox xam-xam zaahir ak xam-xam baatin ci itte bu ko yàlla jox ba nekk di itte Cheikh bu Tijaani radiyallahu anhu kooku mooy borom katmiya kooku mooy màggal guddi katmiya kooku moo moo moo moo moo am ndigal ci pee yàlla bi njëkk a taxawal bés boobu fii ci na Baye taxawal ko ci tund Sénégal di ko def ba ñeneen di ko rey ñu ngi sant yàlla ci loolu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyama kooku mooy Mawlana Cheikh Hasan Deme radiyallahu anhu kon am naa mbégte lool tey ci jàkkaarloo ak yéen jàkkaarloo taalibe yi jàkkaarloo addina di bég ci bés bu mag boobu am naa mbégte lool ndokkeel sama bopp ndokkeel eh, sama yaay Seyda Fatima Hassan Deme waaye ndokkeel xalifa Cheikh Hassan Deme muy Cheikh Mouhamadul Kabir al Hassan al Hassan Deme ndokkeel rakkam Cheikh Abdoul sanndem ndokkeel rakkam danga son excellence saadati ali hasan dem ndokkeel rakkam cheikh omar dem ak mbooleem seen rakk yépp ñoom cerno abdullahi taha cerno ali harazimi cerno sidi arabi cerno ali tamasini ba ci dënga cerno saydu shora mi toog sama wet ak mbooleem doomi cerno yépp góor ak jigéen ñu ma tudd ak ñu ma tuddut waaye ndokkeel jigéen ñi tam suma yaay Seyda Fatima Hassan Deme ak nga xam ne moom Seyda Néné Deme Seyda eh, Maam Astu Deme Seyda Ummu Kalsum Umma Deme ak Seyda dégg nga Zahra Deme Seyda Halimatu Seyda Ndey Astu Deme ak mbooleem doomi Cerno Hassan Deme yi waaye ndokkeel Seyda Ndey Ami Ñas xam ne dégg nga surtout Cheikh Ibrahima di surtout leer ci leer maa ngi koy ndokkeel soxna Thierno yi maa ngi ndokkeel mbooleem doomi roxam yëpp te nga te kenn jiitu ci dégg nga dégg nga ki nga xam ne mooy Thierno eh, dégg nga Ibrahima Ba kenn jiitu ci Thierno Mohamed Dramé kenn jiitu ci Thierno Oustaz Ali Ndaw ak mbooleem taalibe ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di ñaanal yàlla maa ngi oo soppe yi ak taalibe yëpp ñëw ci bés boobu fekkee si ko ngir yàlla fekkee si ko ngir tariqa bi fekke si ko ngir Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu fekkee si ko ngir tukulóoru bàyyi bi nga xam ne moo jaay dundam yépp jox ko Cheikh Ibrahima dugal ay xalwa ay ati ati at si sorol bi mu jigi ci ay néeg guddi ak bëccëg nettil boppam ne dem naa ba mel ni dégg nga gëlëm boo xam ne dafa réer si àll dégg nga di rek di rek ci biir pays yàlla bi ci biir xalawaat yi liggéey Cheikh Ibrahima ànd ko ak njub ànd ko ak mbugeel nekk buntu Cheikh Ibrahima digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dara doxul diggante mu waaye la boo xam ne liggéey la boo xam ne foog am ku ci toog moom ci jamonoom bi mu ñëwee foofu la ko Cheikh Ibrahima toj gis naa wala dégg naa ko xam ne gëm naa waxam mu ne maa ngi yore leetar boo xam ne Cheikh Ibrahima Niass moo ko bind Cheikh Hassan Dème di ko بلغت في الخلوة الربانية مرتبة ما بلغ إليها في الطريقة إلا سيدي علي حراسي ne ko àgg nga ci xalwa ci yàlla xalwa yàlla boo xam ne ni maqaamu boo xam ne tariqa bi ba tariqa bi jeex kenn rek moo ci àgg mooy Seydi Ali Harazimi Seydi Ali Harazimi moom la Cheikhu Tijaani waxoon ne maa xalaftu si waaw kenn ku may moom Seydi Ali Harazimi mooy ki nga xam ne biñ koy suul ndeysaan fekk Cheikh yónni ko mu jëfandikoo mulaazama ba yàkkamti ba foog ne àgg na fekk na kon fekk àggoo ci dara une chose bu ko jëfandikoo mu jëfandikoo si yoon bi ndeysaan mu mel ne ak foog ne àgg na shaw ko jàpp ko rek dégg nga mën yëtu daal di mu daal di faatu dee ko mu dégg mu am xaal bu rëy ko dal dëkk deewutoon gaa yi jël ko ca Badar suko ko foofu dégg nga ñu euh, koy suul nag Cheikh Tidiane ngi mu mën ca xarala yi ni Cheikh Tidiane ñu jàkkaarloog moom toog taalibe di ko déglu mu ne dafa nu saaxibi xëyyan dafa nu bi xëyyan suul nañ sama waa ji fekk de mu ngi dund ndeysaan ñu suul ko foofu am na riwaaye bu wax ne ñetti fan la def foofu di dund xaal bi jeex mu soog a nekk nit dégg nga mu dee ndax bàmmeel kenn mënu nekk nit nekk ci lopp seconde ne beneen riwaaye tamit ne juróom-ñaari fan seen xasanam daan nettalee ci lañu wax ne ci la nekk ci biir xabru bi deewut waaye Cheikh ci xam-xamam bu dee yàlla xamal na ko ne waaye mbi ñu ngi koy suul waaye deewut waaye nag boobu dogal ñëw na te ñoom yàlla yu mat yooyu dañuy xàmmee feeñu waaye yàlla yi dañuy xàmmee bëgg-bëgg yàlla dañu yàlla dañu ànd ak yàlla xam na ci xam-xamam bu ko yàlla xamal na kii dafa war a dee te nii la war a dee loolu moo tax dafa tasaruf moom Cheikh waaye am na mu kaachafa bu mu ci def karaama la wala ne sama waa ji ñu ngi koy suul waaye deewut de kon kooku mooy Seydi Harazim Cheikh Tidiane borom katmiya katmiya nag guddi la xam ne nu baabal alawi woy na ko Seydi Ali Harazim moo ci àndoon ak yonent bi nu baabal alawi wax na ko ci muniyatul murid ñëw fi muharrami gada gawsa rashid xalifatan an almuhaymin almajid watiya zaka cheikhana bi arafa حكاه من حققه وعرفه وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الورى سوى النبي ما وراءه وراء بيت bi mu gënoon a firi wala abiyat bi dana nekk ay conférence ci ku ko xam waaye nag bayt bu mujj bi rek gannaaw bu mu jotee ma xaama kat xatmiya gannaaw bu mu toogee da weer ak ay guddi dégg nga noonu ci la yéeg nag dem ci maqaama bi gën a kawe te mooy maqaama katmiya maqaama bi nga xam ne al maktuumu an kullil wara di ko mu ne maqaama boobu dañ koo nëbb mboole mbindee bi si wan na bii ma yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam rek nëbb nañ la maqaama boobu kon maqaama boobu dafa buyu turam mooy katmiya katmiya lu la kon lu ñu nëbb la nag xel mënu koo daj bët mënu koo gis xol mënu koo xalam def rek mooy nangu bo amee taalibe nga am nga kës nga mahabba nga gëm ko rek ndax aljanna gisuñ ko waaye gëm nañ ko malaaka yi gisuñu mais gëm nañ leen kon moom la ñuy gëmee maqaama boobu rek waaye kenn mun la ci wax benn tarfat ay ci wax wala ci ibaara wala ci xam-xam lu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Tidiane ak yàlla loolu boobu nag moom la ñuy màggal fii Cheikh Tidiane daan wax ne gars yi euh, daal Cheikh Assane daa wax ne Cheikh Tidiane wax na ne nit ñi ñu xamoon lan moo ne ci guddi gi ci ay ubbeeku yàlla dafay nafaxaat ay futuxaat mooy ubbeeku ay uppini yàlla ay mayu yàlla ay leeru yàlla ay yërmande yàlla ay xéewalu yàlla yo wàcc ci guddi gi ni kon danañ bàyyi li ñuy def yëpp même bu raam sax danañ dem ci guddi gii ni kon fenn bu ñu koy weef wéet na ci trop waaye nag Cheikh Tidiane yi wettali na ko bàyyi nga si wettali na ko moo na Cheikh Ibrahim saa su yéete na mu dem na ba màgg tey xel law ba pencam yàlla kon maa ngi ndokkeel Cheikh Assane Deme àndoo ci yàlla rek moo baax taalibe yi loolu bu jugee ca Fuuta ñëw dajeeg Cheikh Ibrahim bàyyi lu nekk mu nekk dëkk di ko liggéeyal ci càkkute bi yëpp yàlla jox la ba bi muy génn àddina nee na mbooleem nu ut man Cheikh Assane man Assane Deme Cheikh Assane Deme ci bàyyi am naa ko yàlla ut xam naa yàlla ci jëmmam xam naa yàlla ci meloom xam naa yàlla ci turam am na rajo jëfam àgg naa fi nga xam ne foofu la góor yàlla àgg mboole lu ma la ut Cheikh Ibrahima am na kon maa ngi sant yàlla bu baax ci bés bi di ndokkeel ñëpp di ci woo ñëpp ñu ci jàmm fekk jàmm ñu ak leer fii ci keppaaru Medina Baye bi nga xam ne Baye waxoon na mooy markasu sëril xat mi fii mooy bërëbu dencukaayu mbootu xat mi mooy Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu nga xam ne dund nga ak moom lan nga ñu mën a fàttali si dund ci a ah, loolu buñ ci duggee moom wax dëgg yàlla dana sori lool waaye nag comme seen temps bi fukki minute ngeen waxta li mu waxagum jege na loolu mat ko Seydina Santem radiallahu taala anhu nit ku doy war la woon nit la koo xam ne da koy xool di dégg wilaayatu gis ne jëmm wilaayatu mi ngi nii da koy xool di dégg tasarruf soppandiku si yàlla gis ne waajaa ngi nii toog parce que amoon na maqaama tasarruf wax na ne képp ku ngeen dégg mu joteeg sëriñ bi rek dégg nga di ko fontoo wala mu di ko ñàkkee teggin am lu ko dal am na ci ay taarix mu ne moom moo ko weq ci tànkam càmmooyam boobu te mu ne tànk boobu léegi maa ngi ko yore Seydina Xasan Dem nit la woon koo xam ne rabbaani la woon dafa uyu lim doon ndax liir ci téere ñu ne la wëliyu yàlla sàngam mënoon na naaw ci jaww ji wëliyu yàlla sàllam mënoon na géej yàlla sàllam yàlla sàllam sàngam mënoon na lem suuf si buga a dox teg tànkam fi teg tànkam fen wëliyu yàlla sangam mënoon na wax asamaan tawal mu taw wala yàlla sàngam mënoon tasaruf def itte bu ko mën a itteel ci kun fay ku ko nekkal rek mu nekk loolu dangay ngay dund ak Cheikh nga gis ko muy def tasaruf ci pie yàlla bi di def tasaruf ci jaamu yàlla yi ci saruf boo xam ne da wóor ne kii li ñu ooyee ci maqaama yëpp ñu ngi ci moom nga gis ci taalibe bu dëggu boo xam ne da ngaa ànd ak sa sëriñ bi bàyyi waxoon ne wala yurisu ma indana illa al muridu sadiq kenn du tukk du donn li am lu mooy muridu sadiq nga gis ne Cheikh Assane la yàlla may na ko muhabbatu may na ko ñaari mbag yooyu nga xam ne daal na ko nettali ne képp ku bëgg naaw dem ci pay yàlla bi taalibe moom lay naawee ndax nit amul mbag janaaw yi ñu am mbagg taalibe nag mbaggam mooy mahabbatu surtout wal ixlaas bëgg ak dëggu ak dëggal Cheikh la te ba léegi te mi ngi dëgg ba dundam nit la woon koo xam ne ku doy waar la foo ko fekk rek li ko taxoon na jug bi muy juum ci bàyyi xaal boobu moom ngay fekk ci moom waaye wax na ne sëriñ mooy kan mooy ko xam ne bu waxee fàttali la yàlla bu jëfee jëfam fàttali la yàlla boo ko xoolee jëmmam yóbbu la ci Ceerno dafa dem ba nga xam ne dafa soppeeku di jëm yi Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñëw jamono tey boo xoolee ay photom da ngay gis mbëggeel moo ko yóbbu foofu mu bëgg bàyyi ndono leeru bàyyi leeru mbóot mi nga xam ne yàlla da koy toxal fu ko neex di ko may jaamam yu kawe kenn amoon na ci cër ndax loolu bàyyi daf ko koo wax ci leetar ba mu ko joxoon bi muy ñëw fii di tarbiya dañu won ko bàyyi gént mu bind ko leetar bàyyi ne ko ñëwal nga nga jëriñu nga jëriñe def li muy def tarbiyam ba pare ci at ba bi maam ay semaine fekk na mu pare gannaaw bu fi tegee ay jamono mu dellu dem Dakar moom ko nettali boppam bàyyi dem Dakar euh, fekk Cerno gi duggoon foofu xalwa ñeent fukki fan mu génn ñu ne ko bàyyi ñu fi sëriñ baa ngi fi mun naa dem ziara ji ko demee bàyyi na ko yow Thierno da ngaa jeex lan la mu ne ko man dama duggoon xalwa mu ne ko xalwa mu ne ko waaw nekk ci néeg bi yëpp ne ko nag man maa la waxoon eh, eh, la nga dem waaye yow laa jël si ñëwoon dem nga toog ak nga dëkk man nga nekk sama loxo nga nekk dégg nga di ma liggéeyal nga yenu sama leer dégg nga wax bi nekk wéeruwaayu tukulóor bël wéeruwaayu képp ko bëgg naan ci yàlla loolu nag xaal bu dafa feeñ ci moom Cerno boo xëyee mi ngi mi ngi wax xam-xam wird doo laazim ba pare rek wëlbatiku na eh, ñi ñuy ndekki nañ rek mu commencé mi ngi lal ci buntu kër gi wala ci ron garab gi foofu lay nekk laajkati xam-xam di jugee fu nekk ci Sénégal rawatina ci Saalum gi ci taalibi ak kuru taalibi di ko laaj ci masala ñi di ko laaj ci tariqa bi dafa mokkaloon eh, jawaahiral maani dafa mokkaloon xadis yi dafa mokkaloon téere yi dafa xamoon ba xam loo xam ne sax doo xam kii fan la ko jëlee da lay wóor rek ne dafa duggoon ci wa madrasatu wa taqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen dafa amoon fatfu ba nga xam ne loo ko laaj mun tontu la loo ko laaj rek masala bu mu mën a doon rek fànn bu dugg rek boo ko laaj lu néew ngay fekk ci àll muy liir téere mokkaloon na mokkal goo xam ne nettali na na da def bu bu buy liir téere dafay teg loxom bi ci beneen page bi euh, xa bi ngir bañ bëtam parce que àggoon na fa xam ne bët bi nu mu xool rek daf koy enregistré ci saasi imaamu shafii noonu noonu noonu la meloon imaamu shafii noonu la meloon euh, yàlla daf ba nga xam ne lu mu bëgg a jàng rek daf koy xool rek ci saasi rek daf koy capté ni téléphone yi ak euh, appareil di enregistré noonu noonu nu raw noonu noonu la xelu Ceerno meloon àggoon àggoon na foofu dégg nga bu liiree téere yoon ba pare ci rek dootu ko moo tax lu raar nga koy fekk muy liir loolu nag defuñ ko pour encourager nit ñi ñu bañ a liir waaye dañuy wane fatfu bi ko yàlla joxoon foo ko fekk tam mu ngi gëmm euh, benn góor gu mu ñu wax alaaji ku tax xaritam loolu mos man damaa seetlu yow foo nekk rek yaa ngi gëmm gën a bëri yaa ngi teg sa bopp bi sa doq bi sewti xol li ko waral càmmooy foofu la xol bi nekkee loolu ci xalway laa ko miinee te loolu ci istixdaar la bokk mooy teewlu yàlla euh, te yàlla ci xol lay nekk moo waraloon su may wirdu li gën a bëri rek sama baat bi dama koy féetale sama xol bi ngir ma gën a am xudur foofu laa jëlee lool mu ne ko tamit seetlu nañ ne sëriñ bi léeg-léeg ay naar Mauritanie ak feneen ñëw dina laaj ay masala di ko laaj mu yebal leen ci yow ku ci bëgg a xam dara demal ci nuurul kamal fi ma chériri jaal ak yi ni mel am na ci yoo xam ne sax génnut lakk gi moo ko yóbbu am na ci yoo xam ne nettali wuñ ko am na yoo xam ne jarul wax xam nañ ko waaye waxam jaru ko mu ne ko waaw loolu li ko waraloon mooy dafa am xaloo bu ma duggoon ci la ma yàlla mayee benn fatax boo xam ne su ma gëmmee rek maa ngi jàkkaarloog lawhul mahfuus bi nga xam ne mboolem lu yàlla amal ak lu mu xala amal mi ngi fa moo tax taarix mu gën a xam ne ko ci kaw suuf si dégg nga mu ne ko lépp lu yàlla mos amal dalee ko ci aadama bo fi may wax ak yow nii lu ma ci waaye laaj rek su ma ko bëggee toon naa tong te du ma xalaat du ma xool te dama jàkkaarloog lawhul mahfuus moo tax may gëm ma su ma gëmee rek maa ngi jàkkaarloo loolu tax tam xam-xam boobu la sëñ bi xamoon moo tax su amee laaj bu ñu laaj bu ñu mënta dégg wala bu jafe rek daf leen di yebal si man kon ci gàttal Thierno Sandem Thierno Baye la Thierno Sandem ramzu la ci wilaya ci taalibe bu dëggu Thierno Sandem yéex naa ñëw waaye àgg na foo xam ne nii dégg nga fi gaa ñi fi ñu yi njëkk a ñëw àgg àgg na fa ndax Baye bindal na ko foofu laay jeexale ne ko dégg nga laa yumkinuka an tajida ishkaalan fii kalaami man sabaqaka mina mënatoo am mukk lënt-lënt ci wax yi wëlu yàlla yi la jiitu fa bidaayatu ka nihaayatu ni bind bàyyi la dégg nga mu ne ko fiñ fiñ ñoom wëlu yàlla yu mag yooyu yow cerno foofu nga tàmbalee kon kooku loolu rek bàyyi ta nag bi muy ñëw boobu wax jooju dafa dafa ëmb képp ku ko jiitu woon rek képp ku ko mos a jiitu ci wëlu yàlla yu njëkkee ci jamono Cheikh Tidiane ñu fa nekkoon ñooñu jiitu woon nañ ko ci jamono fayda ba bi mu tàmbalee ñooñu jiitu woon nañ ko bi mu ñëwee fi gaañi am moom foofu la tàmbalee kon cerno mooy kan cerno mooy tukulóoru baay cerno mooy kan cerno mooy jaamu baay cerno mooy kan cerno mooy bëkk néegu baay cerno mooy kan cerno mooy waarisu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla taas ci barkam cerno dafa laal ci kët mi ya ba mbiram sax dafa nëbbu loo ci bëgg a wax sax doo mën a wax lépp loo ci wax wax tamit ak loo nëbbu tam li la réeree ci moom mu ëpp waaju doy waar waaju daan bëri lu muy jooy te yàlla tax te ji waaye joo xam ne boo ko xoolee rek da ngay am xëy bëtu da ngay mel ne gaynde nga gis waaye boo jaxasoo ak moom rek da ngay mel ni bi sallallahu alayhi wa nga toogal da ngay mel ni Cheikh Tidiane nga da ngay mel ni Cheikh Ibrahima nga toogal da ngay mel yàlla nga toogal seen leer ak seen bët moom ne ci biiram moom ne ci bitam lay gërëm la sant bu baax di kontaan si interview ñu may émission bi ñu sa si عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق